yéen laay jëkk ñaan ñaanal ndax lii archive la yoo xam ni ñun sunu jamono masewul woon moom su ngeen su demee jàng ko ba man ko di ko def yàlla na ngeen dund te yeggale ak euh, dëj bu metti la ñu am xale bu yaru bu am diine bu dul foye waxtu bu foyewul ay waajuram foyewul kennam yàlla na ko yàlla yërëm te yeexem xale bu baax bu am kersa bu baax bu bëgg waajuram bu baax waaye nag ndeyam moo mën a sëy jaagaa baax mënu la ju sax ku baaxul ak seen baay bu baax bi nga xam ne maa moom danoo bok sëriñ Mbàkke Soxna Lo bokk moom sëriñ Saliou yéen nag ma jàpp man ma faral yéen ndax yi amu fi woon. waaw mais maman waxoon euh, moom i sa sa seddoo la woon. moom sama xarit la weesu na seddoo turandoo mooy sama xarit keroog bañ koy ngénte papam da doon maye xam nga dollar yi. bu la ko mayee da nga yow de kii li ma may baaxoon ndeke booba dollar la moo xew xale bu mën a sey bu am jom bu am diine foo dégg moom ah effacé wu yëpp mi ngi ci kaalaam mi ngi ci kursa mi ngi toppatoo borom këram mi ngi toppatoo ay waajuram yàlla na ko yàlla teg ca àjjanay firdawsi nuróowul la xale yii de barke Sëriñ Mbàkke Muhammad fa mu jëm yàlla ko gën a fii juróom-ñeenti baas sax tuuti na ci moom bu yeggee sunu borom dina xam ne xale bu jigéen buy sëy day toppatoo jëkkëram loolu rek moo am solo yéen waa média bi nag gudd leen fan ndax ñun lii màgget bi ngeen ko defal ndax ñun suñuy jamono yi amul aloo daan ñëw ànd ak benn tubaab bu làkkee nga wax ko mu wax la bu ngeen demee ba am jom jàng ko ba di ko defantee noonu ngeen seen assuivi rek mm. denc leen rek on sait man ngeen dem ñu leen di euh, soo demee ma nga doon interview démb de dee na. yàlla yàlla waaw de de de keneen ni dee kooku day met te loolu taxul ma de moo war sa dee du ma dee waaye jom ji ngeen am ba jàng lii ba koy denc ba jigéen ñi di ci bokk. loolu dama leen ci félicité. mais tey lan ngay wax jaaga mi nga xamante ni jamono muñ rek muñ rek moom xamul ki ko jël si. ki koy jël si dañ koo yónni xamul fu nu ko yóbbu xamul moom ak man kan moo ko ci topp te kat kaay doom ku nu jële ci néeg bi tudd la dinañ la jële ci bitti dafa ci bàmmeel yàlla na yéex rek man saa yu ma xëy maa ngi koy waajal jaalo mi day muñ rek ma sama yaay dee na bu yàgg ak sam papa du dëgg yàlla na yéex rek ngeen yàgg seen parents yéen tam ba tëral leen ba def lii ngeen ciy def ngeen def seeni société momal ko sen bop man de vraiment amna naa ci yende de na len leen de yaakaar naa leen. Hmm. alors lan ngay wax bu gan kay muy sa domi tam momi nga xam jamono ji mën nañoo wax que ni euh, la yalla suñu borom jël ci mom wa bu gan gay julit la ñu bok señ mbak Soxna Lo muy nit ko xam ki ci social rek lay dox kon bu ko yalla tegee lii xam lu muy def day muñ waaye muñ na nak ndax julit la. kullu nafsin saaxatin mawti kullu man alaya faani wa yabqi huwa rabbika si jalaali wal kiraam amul ku ñuy génn ci néeg bi tudd la te duñ la génn ci néeg bi ci armée yi dégg nga sama waxa nun maa gi ñoo tiit waaye nan nan nan yaakaar yàlla rek doon tege ñaanal dee day man ragaluma ko ndax naa ni ñi dee ñëpp foofu sax moo gën a war a xumb fii ngénte yaa ciit yaa xew ya foofu sax la war a gën a mais maman ngeen ñu tàggatoo ndax ku nekk xam na ni sa kàddu dafay am solo ci askan wi euh, gis nañu soxna moom yi ci sutura bi nga xamante ni la feebare ba yàlla suñu morom daal di koy jël ñu gis kenn ku nga xamante ni mën nañoo wax ni dafa xaawi suturam wax li ko daloon wax li ko yóbbu ndax loolu rafet bu ko kookal la ki wax feebaru moom yi moom yi non ñooñu ñooñu dafa yaa mënu la ñàkk mhm. ñooñu dañ leen di baal parce que Serigne Touba ba gën nga picc yow yow yow boo bëggee jàpp téeméeri picc mhm. tapis bu yëngu ngay ko nii doo jàpp benn yëppay daw ñooñu dañ leen di baal hmm. waaw bu nu sañoon du mel noonu loo dégg wax ko di jàng wax di jàng journaliste bi te mën a góog hmm. expérience la yàllaa koy def ci nit di nga gis doomi géer doon géer doon góor mais mais journaliste lay man deret la c'est des laa yàllaa koy def ñooñu nan leen baal te démystifier leen jëm leen a xëccaat ñu dugg ci société bi waxtaan ak ñoom dégg ngeen mm-hmm. maa ngi dem yow leen <laughs> ngi ko jox la léegi. amul feebar amul. jullit na bu yàgg te dee amul feebar amul. ah responsable la bu yàgg te dee amul feebar amul dina ko mën a supporter ndax jullit la bu neexoon yàlla mu teg ko ci teg na ci bu ko neexoon du ma ñibbi kullu nafsin saaxatin moom kullu man alayha faan wa garab yi def ni mu ni huwa rabbika si jëlaay wal kiraam amul ku ñuy tudd te dun la te dun jaaga jaaga amul boobu problème jullit la gisaguma ko waaye mi ngi yor kurusam. dëgg la Fall dénk Waly. Waly dara fi mu juddoo ba mu juddoo yi la xam li xew Waly maa yaa may si biir dafa gën jàpp ko xam na ni xam na ni yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg daje Waly nag yal na ko yàlla jàppale bàyyi ko fi bàyyi fi njaboot gépp bàyyi leen fi yéen. Ya ngeen réussir ba kenn ku ne am sa société bopp dalal ngeen sunu xel li moma gëna won tuba bi diko mujj diko yobbu ko internet da ka instant alaykum ñu ngi leen ñu yel yéen baax di leen cheikh tay ñu ngi fi ci Cité Keur ñu xaar a ngi non ci bas bi di jakarlo ñu nga xamoon ñoo ñu feddali seen couleur ak kooku di bugan Gueye Dany ñu leen di fatale lek ngeen aduna gis ngeen ko ni la demal la maa ngi ñëw ndax euh, kii fi jógee di soxna Momy Seck dani bu ko neexoon tiituroo lu ne bu ko neexoon ni Bougane Gueye mooy sama borom kër defu ko bu ko neexoon ni Thione Ballago Seck sama baay defu ko waaye tamit bu ko neexoon ni ñu may Bougane mu toog rek bu ko defee